xam nak nag daal dinañu koy faat te boobu léegi eh, ciow li bari lol ak eh, ku nekk itam di ci eh, waye ñu ñuy fàttaliku ci jamono jojé division des investigations criminelles ak ginaaw bu mbir yi amé nak ñu daal di jël wa police Pikine ngir ñu daal di dem li nga xamné def ko moom moy les premiers éléments de l'enquête and ci ak police scientifique bu ñu waxee police scientifique nak xamné ne fo xamné rek ay meurtre yu mel non am na fa dañu ñëw daal di def li nga xamné mom moy mooy ay prélèvement wuti tamit li nga xamné ay indices la euh, moo xam euh, ci ay euh, deret yu fa bayyi mo xam ci objet yi nga xam ni itam fekk nañu ko ci bërëb boobee ba ko défé itam nak lañu daldi jël enquête daldi koy dénk élément yi nekk ci division des investigations criminelles muy nag fu bokku ci police fo xamné ne xam-xam match na lol ci mbir momé te gis nañu itam ci yenn enquête yo xamné ne loxo daf ci daldi di dugg itam dañu ci am ay résultats yu mucc ayib ci résultat yooyee nag la ñu daal di gis ne euh, naam am na ñoo xam ni euh, boobaak léegi ba ñu ko defee itam euh, dañoo dawoon dem foofee ca Touba àndandoo ak ñi màggal waaye ci seen xarañte ñoom enquêteurs yooyee daad na leen ci teg loxo ci fàttali gu ndaw rek moom Aziz Davala dëkkoon fi de nga à mom moy technopole un euh, ci euh, Pikine wax nationale ko appartement di koy euh, bay wax jam-jam nga lu jëm ci autopsie bi wax les forces de défense muy les forces de l'ordre nañu mbir scientifique ni ma leen ko euh, waxé won euh, sank rek euh, déployé nak seen équipe ñu gis ci appartement bobé itam fekk nañu fa deret yu bari fekk fa itam li nga xamné mom moy paka ñu gis né nak ci lolé dañu ko daldi jël mettre ko sous scellé manam téyé ko ngir mën ci xol mbir momé kan moko daldi def ginaaw itam bañ waxé né mbir momé amna na ñenn ña mu kër gogé itam ay témoignage ñu gis tam yaayam waxon na ñen ñi nak daldi andi ay soupçons euh, ci ñi defoon interview ak ñen ci euh, këru euh, taskatu xibaar yooyee ñenn ñi demoon bay wax sax ne dégg nañu yuuxu ca appartement bi mooy ay dëkkaleem ci ay minute rek ginnaaw ba ñu gisee ne nag daal waa police ak ña nga xam ne ñoo fa nekkoon ñëw nañu ngir daal di jël si yooyu le néew amal boobule autopsie daal di leen nag euh, dénk leen seen borom ba ñu jëlee itam boobule enquête dénk ko ni ma leen ko waxee woon ci ndoxteel gi les éléments de la division des investigations criminelles ñoom itam def nañu seen kéem kattan ba jabonu ji ñu wax ak yéen démb rek moom moo ci daal di mujj am na ku ñu jàpp vers les coups de 4 euh, heures du matin li nga xam ne itam amagum nañu ko ci information ñu ngi wax ne wàllum xaalis ci la bokk waaye itam lu jëm euh, ci règlement de compte itam génnewuñu ko ci benn yoon di fàttali nag ne information émission yi nga xamné mom euh, moom la sans limite TV amone di len ko fatale rek moom mooy euh, laataa yu magal bu mu desee ñaari bés wa division des investigations criminelles euh, tégon nañu loxo principal suspect bu ñu jàpp ne mbir momé muy fat guñaw gogé momit loxom gënu ci yoon ben yoon waaye dañ ñoo nag nak né buñu ko fësalagum ndax buñu ko fësaloon rek mën naa enquête bi le ndax fofé itam ci Touba gis nañu ay éléments yu ñu fa yebaloon ngir ñoñé nga xamné japp nañu mbir mi seen loxo génnu ca ñu leen di euh, surveiller ñu itam ñu daal di leen koy nangul di fàttali rek ne ginnaaw kooke nga xam ne daal di nañu ko euh, jàppoon dañu ko daal di jël directement yóbbu ko rëbës ndax dañu doon bañ mu nekk en contact ak benn nit boo xam ne daal dina mën a yàq euh, bile enquête ñoom nag ñu daal di wëyal Euh, seeni investigation bi nga xamee ne ni itam màgg nañu nag démb euh, wax nañu ne teg nañu loxo keneen ba sax bip moo ko mujjee jëlee foofee ca Touba euh, daal di indi di fàttali nag gendarme mi ñoom la nga xam ne moo leen ci dugal mooy dañ leen woowoon ngir ñu ñëw def li nga xam ne moom mooy renfort ndaxte comme dafa nekkoon ci màggal ak yooyu xamuñu woon lu ñu fay fekk moo tax ñu woo waa gendarmerie ndax police moo yoroon enquête bi ne leen nañu ñëw def li nga xam ne moom mooy renfort ci la ñu tegee loxo kookee nga xam ne nag mooy Mamadou Lamine Diawo ñu gis na itam am na keneen ku ñu ci teg loxo moom moom mooy Omar Gueye keneen ki ci euh, topp muy Serigne Sarr ñu koy woowee Ndës am na itam euh, keneen euh, koo xam ni jàpp nañ ko démb muy Ousseynou Diaw ki ñu jàpp tey jii ci fajar ci 4 heures du matin kookee moom mooy Assane Diaw di fàttali nag ñoom ñëpp ñoo bokk benn famille muy Mamadou Lamine Diawo di Ousseynou Diaw ak Assane jaw ñoom ñëpp ñoo bokk benn famille dëkk foofee ci ginnaaw raay ndax ñi def jëf ji ak ñi nga xam ne moom kër famille buñ koy xayma ci nattukaay ci ay 200 euh, mètres dong lay daal di euh, euh, toll enquête bi tam ñu doon wax ci ñi ñenn ñi nga xam wax nañ ko ni dafa am ay jigen yo xam japp nañ leen ci waye ñuy fatali ba ci jamono ji ñu wax ak yeen amul benn jigen bo xam ne teg ci loxo kudul Nabou Leye di ab fecckat te mom dañu ko tek en position de garde à vue ken waxagul mo def ken waxagul defal waye yoon mom moy def ligeyam ndax bokku na ci ñenn ci nga xam bokkon nañu nek ak kooke di Aziz am am na itam keneen Euh, ci walum leeral lekk muy euh, ab waay bu ñu mbir bi mu amé itam euh, taskatu xibaar yi déggoon nañu ko li nga xamné mom moy micro di def ak mom interview muy ki casquette démb nak gis nañu ñu bari nan ko kessone casquette dafa récupérer wave. japp nañu kooku ñu mel ñuy wax né yooyu information yu joxé dëppawul ak dëkk koku kenn japp ko mom momé mi ngi tuddu Mbaye Seck waaye nak ñuy fatali né momit dem na ci division des investigations criminelles Talata ak alarba ñu daal di koy déglu bàyyiwaat ko mu ñibbi ci interrogation yoy nga xamni sax wax muy laaj ak tontu yu dox ci digantem ak enquêteur yi na wax sax xamu lan la waye ñuy ne kenn ko te itam amul ben élément de preuve bu wane ni mom momé euh, ci mbir mi euh, daal dina ci bokku di fatali rek mbir nga 18 euh, août lundi ndax dañuy wax ci euh, euh, Conté né minuit bu jotee mën nañoo japp ni ñu ngi ci benen bëss bobu motax ñu koy japp ci lundi mi ngi xaw digënté 22h japp 4h du matin mom nabulay momé ci première enquête wala première laaj ak tontu yi nga xamné ne euh, dox na ci digganteem ak enquêteur yi lamu mu wax moy ci interview bi dafa waxoon ne moom Aziz dafa feebaroon tax nak mu dal di koy yobbu fi nga xamné ne moom docteur waye bañu xolé li nga xamné moy enquête bi lañ ci gis moy dafa am ay tiant yo xamné mook Aziz foofee la ñu àndoon cant yi ma nga xewoon foofee uh, ca Pikine uh, ñetti maar uh, ku tudd Ndeye Ndiaye moo organisé woon la cant ba ñu ca noppee itam gis nañu ca cant yooyee sax ne faat nañu Aziz jéem nañu xeex ak moom foofu laata nag ñuy dox seen diggante Nabou daal di ànd ak ki nga xam ne moom mooy Aziz ñu jël taxi mu daal di koy déposé ci Pikine Icotaf laata mu koy wax ki nga xam mooy Aziz leneen leneen itam loo xam ne euh, dox na ci digganteem ak enquêteurs yi laaj nañu ko ci waxtu boobu fu mu nekkoon mu ne woon da doon nelaw waaye bi ñu exploité téléphone am pare euh, dañu koo tegal ne ko euh, jamono bi yaa ngi doon waxtaan ak whatsapp kan nga doon waxal mu ne xamul kan la doon waxal waaye ba jamono jii ñuy wax ak yéen jàpp nañ ne moom moomee dafa def wala deful waaye daal yoon téyeegum na ko placé ko en garde à vue ngir wëyal li nga xam ne itam moom mooy enquête wax nañ leen sànq ki nga xam ne moom mooy Mbaye Seck te ñuy wax mooy waajoojee soloon casquette bi ne dafa récupéré ay xaalis waaw kañ muy image yooyee ne eh, dafa récupérer xaalis kookee eh, kenn jàpp ko laaj nañu ko tontu na ñu daldi koy bayyi mu daldi di ñibbi waaye amul fenn fuñu ñu né mom momuy moomu na ay euh, Wave wala quel que soit ben xaliss bu muntu toll ci montant bi ngir daldi koy euh, ci téléphone yooyu ñuy fatali batay rek euh, ki di Aziz Davala ak ki nga xamné mom moy Wali ñom ñaar ñëpp ku ci nekk téléphone XR nga yoroon ñen ñi wax nak naan récupéré nañu li def nañu li li nga xamné les premiers éléments de l'enquête daldi nañu koy am wax nañu né ci compte Aziz amul kenn ku ci récupéré Wave waye

Euh, de francs CFA euh, ci ça récupérer xaalis bobé loolu moo waral ñu nous am traçabilité mën a tamit euh, surveiller ba xam kookee euh, fan la daal di euh, aw ak nan def ba mënu te def itam def ko dem ay 20 heures daal jot transfert d'argent bu nekk ci ginnaawaay foofee nag la daal dem récupérer fa XR nga di tam ci ñi nga xam ne jàpp nañ dañu see bokk ak ñeneen ñi naan bokkuñu ci ci jamono jii ñuy wax ak yéen ñii ñu leen euh, limal muy Omar Gueye euh, Serigne Sarr ñu koy woowee euh, Ndës keneen ki di Assane Diaw Ousseynou Diaw Mamadou Lamine Diawo ñooñee rek lañu ñu tawagum loxo ak Nabou Leye mi nga xam ne daal nañu koy déglu ñoom dong la ñu mën a gum wax ne daal yoon teg na leen loxo waaye teewul ne enquête bi itam ni ah, suivre euh, son cours euh, Dembuitam itam euh, gis nañu ne fofé ci Touba ci police bi ndax ba nga un dañ leen renfort jël police bu jannatu lañ ko Wa BIP ngir mu koy djébal ñi nga xam ci itam itam ñi comme ni leen euh, ci euh, euh, ñooñee né enquête bi mi ngi wëy fofé ci division des investigations criminelles de japp nañ ci képp ko xamné sa loxo

Dabala daf ko daal di jotoon ña ngay wax ne ma nga jógee ci États-Unis mu waawoon koo séddale nag ci ay euh, paasu màggal yoo xam ne ñoom ñi ñoom itam euh, seqoon euh, nañu ko waaye itam ci séddale boobee ñenn ñi jàpp nañu ne loole itam awul yoon ba jàpp nañu itam ci problème yooyu nga xam ne amoon na fi ñu ngi ko ciy wax leneen itam ci ay kàddu yoo xam ne mës na koo yëkkati jàpp nañu ci yooyu itam tax na itam mu daal di am coow muy ab xale bu góor boo xam ne faatoon nañu ko foofee ca ginnaaw raay te Aziz Dabala doon ne dañu war andi wat li nga xam mom moy euh, peine de mort ñi ngi japp ni faato ni tam ñi euh, sen euh, loxo gennu ci ben yoon ak lu ci munti am dal ñi ngi wax né ñi nga xam ñom ñoy les éléments de la division des investigations criminelles ci xarañte gi nga xam nak nag daal dinañu koy xarañ ci liggéey gi nga xam tam itam liggéey bi muccu ayib bo xam ñi ngi koy daal di def rek mun nañoo jàpp ne daal Euh, lépp loo xam ne andi nañu ci euh, ay euh, leeral wala lépp loo xam ne daal toftalu na ci enquête bi ñun waa Sans Limite TV nañu ci ànd ak yéen waaye di fàttali ne nag ñoom ñëpp ñu ngi dëkk foofee ca Pikine ginnaaw raay kon mun nañoo wax ne daal lii lañ leen andiloon ci ay xibaar en attendant ñuy am leneen loo xam ne dana ruusaat ci enquête bi lépp lu ci am rek daañu ñëw dégtal leen ko ak Sans Limite TV.